أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونعوذ بالله من سرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبد الله ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم mbokk jullit yi ñu ngi leen di nuyu nuyu lislaam di ñaanal di ñaan buur yàlla tabaraka wa taala mu nangu sunuy jëf ñuy ñaan borom bi tabaraka wa taala mu sellalal ñu sunuy jëf lépp lu ñuy wax ak lu ñuy jëf mu nekk ngir jëmmam ngir moom rekk tabaraka wa taala ñu ngi ak yéen ci waxtaan wi nga xam ne dañ leen ko tàmm di defal mooy ci cab bu ñu wittee ci toolu yonent bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam mooy baaqa min rawdi rasul sallallahu alayhi wa sallam mbokk yi xam ngeen ne doomu aadama jubluwaayam ci àdduna mooy mu am texe loolu rek moom mooy yitteem àdduna doomu aadama li fi yitteem yépp mooy mu am texe nit ñépp nag ñoo bokk jóg di wër texe googu am na ñoo xam ne ci ñun bi ñu jógee di wëri texe googu am na ci place yu ñu jëm kenn ci ñun nanguwul texee di koo wax rek mu ne damaa bëgg texe kenn ci ñun nanguwul am jafe-jafe ak tar-tar ci àdduna waaye laaj bi mooy ñi nga xam ne ñëpp jóg nañ di wër texe genn wàll gi yëpp dañoo gëlëm ndax xamuñu fan la texe nekk ba ñuy laaj naan ay na saada fan la ñuy jëlee texe fan la ñuy jëlee jàmm wa ma tariqu ilayha ana ban yoon la ñuy jaar ba jëm ci texe ñu bari sàkku nañ ko ñu dem wëri ko ci ay barab waaye fekkuñu ko fa ñu dellu siwaat ñoom ñoo ñu wëri woon ko ñu perte torox sooy mel ne ku uti woon jamaa ci désert mu ngeen ne jamaa ku ko uti ci désert di ngay ñibbiwaat ay loxoy kese di nga ñibbiwaat ak ay tànk yu metti ak ay mbagg yu toqi ak ay faar yu metti waaye doo am jamaa amaana nag mbokk yi suñu àndee ak yéen ñun ñii ak yéen ñu ànd ñun ñëpp comme dañuy wër texe dañuy wër jàmm àdduna di wër jàmm àllaaxira ñu leen di ñaan ñun ak yéen yépp nañu bokk ànd jëm ci toolu sang bi sallallahu alayhi wa sallam jàpp naa ne gëm naa ne yëg naa ne ñun li ñuy wër yépp foofu la nekk lan moo tax li ñuy wër foofu la nekk mooy xissa bi ñuy nettali xissa bi yonent abu hurayra nettali ñu te yonent bi sallallahu alayhi wa sallam bàyyi ko ci toolam abu hurayra wittal ñu ko abu hurayra indil ñu ko ñun ñépp bu ñu bokkee ànd déglu xissa bi jël cab bi danañ xam ne ndeke ñi wëri woon texe yépp ñi waru woon jàmm ñëpp ñi doon wër jàmmi àddina ak jàmmi àllaaxira te ñëwuñu woon ci tool bi lii moo tax ñu sooy ndax mbir mi foofu la nekk abu hurayra ne yonent bi sallallahu alayhi wa sallam nee na ishtara rajulun min rajulin aqaaran la fa wajada arrajulu alladi ishtara al aqaara fi aqaarihi jarratan fiha zahab fa qaala lahu alladi ishtara al aqaara xuz zahabaka minni innama ishtaraytu minka al arda walam abta minka zahab fa qaala alladi lahu al ard innama bictuka al arda wama fiha fatahaakama ila rajulin فقال الذي تهاكما إليه ألكما ولد قال أحدهما لي غلام وقال الآخر لي جارية قال أنكهوا الغلام الجارية وأنفقوا على أنفسهما منه وتصدقا رواه بخاري mbokki abu hurayra ne yonent bi ne benn waaye ngi nii boo xam ni dafa jënd tool dafa jënd benn pàkk ba mu jëndee pàkk ba walla tool ba moom mi nga xam ne moo jëndoon pàkk bi walla tool bi ba mu koy bay walla mu ko doon defar di ko tabax ba ñuy gas walla ñuy ruuj fekk nañ ca pàkk ba benn àndaaru xaalis benn malet bu def or walla benn malet bu def xaalis waa ji nga xam ne moo jënd pàkk bi ba mu ko fa fekkee moo jënd tool ba ba mu ko fa fekkee mu yenu malet ba walla mu yenu valise ba walla mu yenu àndaar ba ba ci ku ko jaayoon tool ba walla ki ko jaayoon pàkk bi mu ne ko lii de yaa ko moom ca palaas ba nga ma ko jaaye woon laa ko fekk allahu akbar waa ji ko jaayoon pàkk bi ne ko hee jëlal sa lii nga yóbbu ba ma lay jaay pàkk ba moog la nekk ca pàkk ba yépp laa laa la jaayoon li yaa ko moom ñoom ñaar ñuy bu ma xante mbir mi mbokk yi ñii ñoom ñooy ñan allahu akbar ci ragal yàlla ci bëgg yàlla ci bëgg dugg aljanna ci bëgg am kontante yàlla moo tax ñii di def lii ci gëm yàlla xam ne nit warta lekk lu daganul xoolal ki jaay pàkk ku ñu jaay pàkk ngay defar pàkk ba nga fekk fa gànjar nga fekk fa wurus nga fekk fa xaalis nga buub ko allahu akbar delloo ko ci ki la jaayoon pàkk ba ne ko lii yaa ko moom ndax ca place ba nga ma ko jaayee woon laa ko fekk waa jan jaayoon pàkki jaayoon pàkk bi ne hee ba ma lay jaay pàkk bi ak lépp lu nekk ca pàkk ba moom laa la jaay kon lii yaa ko moom ñoom ñaar ñuy buuxante mbir mi ñoom ñaar ñuy xeex ci mbir mi di ci xuloo di ko jamaxante di ko bëmaxante ba loolu yóbbu leen ñu dem ci buur buur bi di leen àtte ba ñu demee ca àttekat ba mu ne leen yéen ñaar ndax am ngeen ay doom kenn ci ñoom ne man am naa doom bu góor keneen ki ne am naa doom bu jigéen mu ne yéen ñaar may leen yow mi am doom bu jigéen mayal sa doom bu jigéen xal doomu kii bu góor bi yow mi am doom ju góor gi nañ la may nañu may sa doom xale bu jigéen bi na ngeen def àndaaru xaalis bi maletu xaalis bi maletu urus bi na ngeen ko def muy can bi ngeen financé mariage bi ngeen feetal ci xale yi ngeen dindi ci alal ji saraxe allahu akbar allahu akbar yal nañu yàlla jubal doomu ndey yi yal nañu yàlla def ak dëgg-dëgg ay jullit xool leen lii ni mu rafetee xool leen lii ni mu baaxee xool leen lii ni mu yiwe xool leen lii moo tax barke rek moo ci nekk yiw rek moo ci nekk doomu aadama yu bare bari dañuy yaakaar ne texe mooy am alal ju bari xoolal kii dafa daw alal xoolal ñaar ñi dañoo daw alal ñu bari dañuy yaakaar ne kasirun min annaas yazunnu anna saadata fi lxina wa fi raxaai lais yaakaar na ne dund mooy am alal ju bari ak dund gu nëtëx wala wërsëg wu yaatu wala ay kër yu ne gàññ wala ay oto wala am-am yu bari loolu lañ yaakaar wala lekk gu neex mbaa naan gu neex wala dëkkuwaay bu rafet wala jumtukaay bu mel noonu ñu bari loolu lañ yaakaar am na ci nit ñi ñoo xam ne jàpp mënuñoo muñ xiif mënuñoo muñ mar mënuñoo muñ ñàkk mbokk yi xam ngeen ne bu fekkoon ne am alal mooy tax dund Europe Amérique ñoo ñu ëpp waaye xam ngeen ne Amérique bool bu rafet la waaye la mu ëmb jàmm amu fa Europe bool bu rafet la rek ci kaw waaye la mu ëmb ci biir jàmm nekku fa mënuñu am jàmm doo toog semaine te déggoo ku ñu rey déggoo agression déggoo viol déggoo déggoo kon loolu jàmm amu fa ñeneen ñaa ngi yaakaar ne am na ñoo xam ne yaakaar nañ ne am jàmm mooy siiw ba tax ñu bëgg siiw ci mboolem lu ñu fexe ba siiw rek nañ ko def mënuñoo muñ dara moo tax danañ def pexe bu nekk pour ñu dégg leen mbokk yi dëgg-dëgg texe dëgg-dëgg as-saada izan laysat fi hada aw zaak texe dëgg nekkul ci lii nekkul ci lële walakinaha sayun moom texe mbir la moo xam ne yas'uru biha al insaan fi amaqihi nit ki daf koy yëg ci biir xolam ci xelam ci jëmmam ci léppam ci ay wetam yépp lépp set xelam set xolam set jëmmam set ay waxam set ay doxam set dugg-duggam set génnam set loolu mooy ngëm yàlla dëgg-dëgg ku jëflanteeg moom xam ne man jullit laa jëflanteel ku mu waxal nga xam ne jullit laay waxal ku mu àndal mu xam ne man jullit laay àndal lii dëgg-dëgg mbokk yi moom mooy taxe wan yoon nag la ñuy jaar ba mën a yegsi ci taxe innahu huwa zalika al manhaj alladi iltazama bihi kila arrajulayni fi lxadisi sarif mooy yoon wi nga xam ne ñaari gaa yi jaar nañ fa ñaari gaa yi ki jaay place bi ki jaay pàkk bi ak ki ñu jaay pàkk bi ñoom ñaar yoon wi ñu jaar mooy yoon wi indil doomu aadama texe ci àdduna moo koy indil texe ci àllaaxira ci ñàkk a jaar ci ñaari yoonu gaa yi texee dil lay indil sonn ci àdduna dem àllaaxira borom bi tabaraka wa taala jëflante ak yow doomu ndey yi mbokk yi càbb bi abu hurayra wittal ñu tey suñ ci amee dégg-dégg dinañ ci am ñeenti dégg-dégg bi ci njëkk mooy ataharruzu min al haram dañu war a moytandiku lu araam ab julit du lekk lu araam ab julit warul jege lu araam lépp lu mu mën a am na am lu lu dagan lépp lu mu mën a ñàkk na ñàkk lu dagan mooy tëndikul doomu ndey ci sa lépp lu xaraam ndax da lay yàqal wa mimma laysa lil insaani fiihi xaq lépp loo xam ne amoo ci àq amoo ci droit mooy tëndiku wala lépp luy niroog loolu mooy benn ñaareel al adl fi l qada yaxfazu l xuquq di àtte dëgg di àtte dëgg moom mooy sàmm àq yi aka neexoon sunu àttekat yi ñu mel ne àttekat bu maandu bii nga xam ne moo àtte diggante ñaari góor ñi su fekkoon ne jamono tey la di nga gis benn àttekat bi mu ne ki jaayoon pàkk bi yaa ko moom ñu teg dil ñoom ñaar génn mu ne ko jëlal nangam ma jël nangam waaye àttekat bii ragal na yàlla moo tax gis nga fi mu jaar ak ñoom gis nga ni mu leen ci génnee gis nga niñ ci génnee ñoom ñëpp gis nga mbir mi ni mu demee ki jaay pàkk bi ragal na yàlla ki ñu jaay pàkk bi ragal yàlla attekat bi ragal yàlla ñaari xale yi déggal seeni way jur wallahi mbokk yi diine rek mooy dëgg sans diine dañuy alku sans topp yonent bi sallallahu alayhi wa sallam dañuy texee di àdduna dañuy texee di alaxira alqadaaw aladl fi lqada yaxfazu alxuquq wa yamnahu almujtama attumaaniya attumaanina atte dëgg mooy nga delloo nit ñi ku nekk àqam waaye ci jamono boobu bu ñu delloo ku nekk àqam ci la société bi di amee jàmm ci la ñuy nekkee ci paix totale ci la ñuy amee sécurité ku mooy ñaareel bi ñuy jëlee ci xadiisu yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ci cab bi nga xam ne abu hurayra wittal nañu ko ñetteel mooy al islaam laa yu majjidul faqra islaam day du encourager pauvreté ñàkk islaam du ko encourager waaye islaam diine la joo xam ne dafa xeex pour pauvreté génn ci kaw suuf moo tax mu indi azak walakinahu yamnahu nufus al amna wa sakina fi talabi rizq waaye day indil nit ñi dal ñu mën a wuti ñu mën a gëstu ñu mën a liggéeyi ci jàmm ci dal ci sàkku wërsëg sooy waa sàkku wërsëg nga sàkku lu dagante teey sàkku wërsëg bu mu tax nga jël jaasi bu mu tax nga jël fital bu mu tax nga jël yat di jël loo moomul waaye daf lay wax nga sàkku wërsëg ci dal ci teey ci doxin wu rafet ci amin wu rafet kooku mooy ñetteel bi ñuy jëlee ci ndénkaane yonente bi sallallahu alayhi wa sallam ñeenteel assaadatu ixsaasun yanbau min daxili nafs wala yafiidu min xaarijiha texe dëgg-dëgg doomu aadama mi ngi koy amee ci biir xolam ci xelam mu dal mënoo ko amee feneen soo yëgee ne yow dëgg-dëgg am nga ngëm yàlla gu tranquille sa xel dal na sa xel sa xol set na yëgal ne yow gëm nga yàlla tabaraka wa taala moo tax borom bi tabaraka wa taala di tagg ci alquran mu ne alladina amanu wa lam yulbisu imanahum bi zulm ulaika lahumul am ulaika lahumul amn wa lahum muhtadun ñi nga xam ne dañoo gëm yàlla jaxasawuñ seen ngëm ak lenn ci bokkaale ci tooñ ak lu mu mën a doon yàlla nee na ñii ñoo am kóolute waaye ñii ñooy ñu jub wa hadihi wazifatu limaani fi nafsi alinsaniya yabcudu biha an iltamci wa yahdiha ila alictidali fi lsacyi ala alrizq wa yamnahuha alsakin wa hiya sirru sacaada fi lxayat yaqulu tabaraka wa taala alladina aamanu wa lam yulbisuu imaanahum bi zulmin ulaika lahum alamnu wa hum muhtadun dëgg-dëgg mbokk yi jumtukaayu ngëm yàlla ci bakkanu nit mu del xel mu dal daf koy soriloo nay daf koy soriloo tàng daf koy soriloo mbon daf koy soriloo siis waaye di ko jubal ci maandu ci teey ci dal ci ut wërsëg di ko ubbil teeyu bakkan te mooy sekkere doomu aadama pour mu texe loolu mooy sekkere mooy bakkanam teey bakkanam dal ci dund gi moo tax yàlla dellu siwaat ci aaya bi mu ne ñi gëm yàlla ci xasewuñ seen ngëm ak lenn defuñu seen ngëm foo foo biye foo nangam foo foo ulaika lahumul amn yàlla nee na ñii ñoo am jàmm ñii ñoo nekk ci sécurité yaa waaye yàlla nee na ñii ñoo jub yàlla nañ ci yàlla boole kon mbokk yi lii moo doon waxtaanu tey ñu ñaan yàlla tabaraka wa taala mu def ci ñun dégg ak topp asalaamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu